ASC boo fi gis ci arrondissement bi jot nga jigéen ñi ma lay wax ne rek li fi xew tey sa ñëw ministre de la santé et de l'action sociale nekk camarade mi nga xam di parti président de la république wóolu la dënk la cadre parti bi loolu confiance bu rëy la tamit nga nekk mag nekk xarit nekk koo xam ne fierté nga ne loolu waa arrondissement bi ñu xam ko département de Dakar dix-neuf communes la la commune bi nga xam ne APR Macky Sall moo gagné woon Abdoulaye Diouf Sarr mu nek le maire de la commune de Yoff lolu mom mom moy ku ñu tuddee mo sauver honneur ndax bu du won mom dinañ wax ne département de Dakar Macky Sall gagné nako mais par benno mais APR Abdoulaye Diouf Sarr la sama kàddu lu gudd lenn rekk mbette la kaamil yi fi wàcce chef de village yi imam moske yi ak setu yenente yi ñoom ñëpp li waral loolu nee nañu ñaar la président de la république Macky Sall xam nañ ne fii ñun Fuuta fàttewuñu de ñu de jaar nga ci gis nga ci hôpital bi ginnaaw yàlla ak yonent bi du kenn ku dul Macky Sall Macky Sall la de hôpital de deux milliards te tamit équipement yi ñu ngi ñëw nga nekk ministre de la santé wax dëgg yàlla sens la ci ñun président de la république Macky Sall moo def lii doole biñ ko amee am kattan mën a dem ci nguur gi jël ay mbir indi ko fii ci gox yi du kenn waay kan la Macky Sall la ak jëmm jooju gi nga xam ne ne dafa nekk sa gauche di le directeur général de l'AGETIP première personne bi njëkk wax ci rajo Bosoye en tant que autorité moom la maa ko ko jagleel ndax rajo bi maa ko créer c'est la plus écoutée actuellement dans cette zone moom moom studio bi mom lañ ko tuddee devant le ministre à l'époque Mbagnick Ndiaye y avait le maire de Dabia votre ami et frère collègue ministre Yaya et le maire de Orefondé Amadou Adama Il y a le maire de Matam Mamadou Mouridjaou, y compris le premier adjoint de la commune de Chilon. pour nous gawa libérer ñii dañ lay ñaanal rek ñoom liñ fi ñaanal président ñaanal la ñaanaleel ma ñaanal jullit yi sa jëmm moo tax ñu ne première visite officielle bi dañuy jàng loo fi naroon fekk mu nekk ay ay yóbbaale na ko incha allah ngeen rek ngay fekk fii moom ngay gis ñii ku ñu ñaanal nga tekki de ñi ku ñu ñaanal sa mbir sa aaju faju fasaaleel soxla boo am na ko fasaale bu ñu yàlla mayee jàmm bu soxla yooyu fajoo nag bu leen fàtte soxla boo am rek fasaale ko xam naa ne maa yow ku ubbi soxol Macky Sall la fay fekk loolu lu leer la te loolu incha allah ñoom it loolu la ñu wax jël nañu seen kàddu pour wax ne incha allah dina fi nekk si kanamu nguur gi ba xëy mu ne leen doyel naa bu dul loolu kenn du ko fi jëlee ñu wax la ko rek.